juróom-ñaari daara ku ñu gën nga sow ah mbokki amateuru lamb yi olof njaay dafa ne fa nga wokk foofa neex delloo fa sab loxo fàllu njaay borom njaay production la mu def keroog ci Iba Mar Diop moom la amateuru lamb yépp di waxtaane ma ne ko fàllu loo narati mu ne ma le 11 janvier 2020 ci stadium Iba Mar Diop damay indi combat bu rëy mu nekkati soog des gone yoo xam ne bu ñu bëree mu neex bu ñu feccee mu neex gone yi nga xam ne ñépp a leen sopp ndax seenu njàmbaar muy grand combat bi dox ci diggante bébé bismeek aada faas bu bennoo nekk combat muy ñaari gone yoo xam ne lambaam na ci ñoom yaakaar ma ne cey le 11 ngay dox ci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

ñoo ko seet si muy ma Baye Mandione Junior ma Mandione ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di nuyu ah, àdduna di nuyu seen site bi muy wasaare làmb ñoo ngi koy suivre bu baax a baax a baax. Mhm. Ah. kan mooy Baye Mandione Junior. waaw Baye Mandione Junior xale la rek bu ne caaray di bay waaram ci làmb ji waaw di bëre nii rek yaa ma gën a am. Mhm. Mhm. lan dugal ci làmb. waaw ñëw si bi xam nga muy sama gàlle am champion mu mag mi Baye Mandione xam nga. ma tegoon ko bët nag xam nga. Hmm. man ma kenn ku moom daal di koy teg bët gis nit ñi ñoo ngi koy bëggee si làmb ma xam ne man li mu tur bi am si làmb suma ma continuer hmm. dinaa ko am affaire yooyu noonu loolu daal amour la rek loolu moo ma dugal si làmb sama gaal yaa gën a am hmm. dugal ci làmb. lu ngeen bokk. ñoo bokkoon ndey ak baay. si mais dëkk ak Baye Mandione dafa mel ni métti na Baye Mandione dafa weex de. non weex gi si làmb la rek. billaay samay copains sax dañ may laaj ana Ndione xanaa nekku fi. billaahi moom fii lay toog xam nga boo dee entraînement dem entraînement kenn xamulu ko dara mais bu nekkee ci waar bi moom mi làmb da ci def waaram ba mu mat sëkk waaw mais comme ne fi jàppal bàyyi la yooyu noonu kenn mësu ko dara ci koñ bi. billaahi man la waa koñ bi gën a gis sax comme moom. Hmm. yaay génn quoi dem ci mafia beeg business yeeg yaa ma gën a xam. waaw xam nga rek génération bees bi lakkale yaa ma gën a am. ñaata kañ nga dugg ci mbapat. mbapat. Hmm. départ ah man day est-ce que man damaa judd rek commencé bëree. Hmm. dama daan dem école su ma jugee école dama daan bëri école ay tournoi tamit. Hmm. muy école 2 fii laa doon jàngee hmm. su ma wàccee dem tefes dem bëri nañu tefes gaa ngi tout près ku xam gu nekk la bu moo xam ko si bëri ñun moom dañ koo foyee daal. kañ nga dugg ci arène ban année. arène maa ngi dugg 2015 2015 am 7 combats. waaw 5 victoires 2 défaites. Euh, sa premier combat koo bëreel. Boy Diop. benn baraag laa ko bëreel mu daan ma. ku bëree grand combat bi. jour bi jat li moo ko bëre. Hmm. ak kii nu mu tuddati sax euh, Vandam. Hmm. Vandam mu parcelle. Hmm. ñoo ko bëre waaw. kon sa première dugg si ci làmb da ngaa perte. waaw damaa perte mu doonoon combat boo xamante ne sax kooku mag la. yàlla xam na ni maa ko mën dóor naa ko ba mu kaawoo wër naa ko noonu bu may jamono jooju xam ko top 5 moo ngi xew. ma ne kii daal faa mu dugal ko top 5. par yàlla nag mu calme mu door fees. waaw ah, mais loolu moom xam nga rek affaire xale la mais loolu dootuma dalee si làmb instant nu ma daanee baax na. bi nga daanoo sa premier combat ci làmb bi nga ñëwee dugg si ci kër gi lu la bàyyi wax. waaw dafa ma dalal xam nga daa damay jox xaalis ne ma demal nga dem ci restaurant yi mag nga reer xam nga tàggat ma ci loo xamante ni affaire yëgu ma sax defeet bi semaine bu topp ma dem ba dëj ba dem jël tournoi bi fàtte naa ko amaat combat daan waaw nekkul loo xamante ni waaw mooy loolu sama commencement am damaa bëre daanu ñëw bëre daan bëre waat daanu mais instant bi yàlla mu suturaal ma tegale samay victoire. Hmm. saa ñaata victoire nga tegale. instant bi quatre laa tegale. kan ak kan nga daan. maa daan rawaan. rawaan deux bu parcelle. parcelle waaw hmm. ak Orton. Hmm. ak Kangam ak Africain. ak noonu Africain Kangam. Kangam nga mujjee bëre. waaw. fi mu toll nii promoteur yi ñoom lay contacter. waaw ñu ngi wax mais chaque jour bu waxee ba ma dundee yaakaar après affaire day mujj a yàquwaat xam nga. noonu nañ dox sama combat ak Boy Say 2 ak Bébé Diène yooyu yëpp ngi ko doon dox ba affaire yi ma confirmé na woon ba avance war a génn. mais dañoo dem ba si biir xam naa affaire arrangé wu leen tamit mais nekkul tamit xaw ma loo xamante ne dama leen ci balaamee ñoom ñoo xool ba waxoon man demaat tourné waat. làmba ji mu ngi fi samay morom mu ngi fi képp ku ma làmbal boolewul ren gii a métti na man xale laa damaa ne si yoon. Baye Mandione Baye Mandione da ngaa dëgër fit Boy Seye numéro 2 xam nga ne Youssou Ndour ko mujjee daan. Youssou Ndour mi nga daan sama man. billaahi. ay génération ngeen parce que ay moroom ngeen ci làmb. ay naataango ngeen. ñoom ñoom sax du ñuy génération na ñoom yàgg nañ ci làmb. yàgg nañ ci boobu léegi ñu ngi saxaar mënu ñoo tàkk ñun dañoo ne si làmb am waa war see jël suñu waa waar moom mat sëkk. bu dul moom di keneen. di jëntu moo sax billaay walaay. Bébé gis nga ni muy def ci bëre simple waaw loolu moog ñuy bëreel la. moog ñuy bëreel la mais yàlla xam na ni dàqu maa bërepp doole te gënu maa ñemee entraînement tamit. sa combat yu bari dañuy ñëw gis nga bëgg a xeex xeex bi lan la da favorise favoriser xeex bi de trop bàyyi. non xeex bi pour bunt la rek man bëre laa gën a man comme xeex sax waaw dinaa cokkaas nii rek waaw yaa ma gën a xam mais bëre buñ talantee nga xam ne man damaa mën a bëre ku xam kàngam xam ni jeexaloon na booy ndax ku tegale huit combat fii nii si suñ génération daanu woo ma ñëw jël la daan la kooku daanaan la moo tax su ma déggee ñu naan ay bébé jën lit simple ak yooyu noonu daa mbër yoo xam ne ay mbëri mbapat lañ man mbëru arène laa tey ne kenn lañ ma doon xam mu jëloon avance si lañ ma doon xam bu baax. non bëgg da nga koy bëgg a dóor ba mu tëddal boppam. non xam nga du ma fi mën a wax ak moom nii. Mm. di nga may bës yooyu noonu. Mm. ndax moom jëlul avance bi mais tey bu doon jël avance bi dina dinaa wax man li ma koy def. Mm. te incha allah bu combat bi taxawoon bu confirmé li ma wax loolu laa koy def. ma Mandione dafa mel ni yaakaar gi mu am ci yow ci làmb du mu ko gis buy dem fu muy dem yow lay àndal lan la seen diggante yéen ñaar. no du question loolu sax ndax ñun ba nekk ay xale ba léegi ñun bàyyi ma ñun lañ xam li ma sam papa yi defal moom la may defal bi sam papa génne àdduna ba léegi moom moo ma yor barki alxuraanu karim samay doomu baay aw ma seen fay nga xam ne ñoo bokk a baay ak ñoo bokkal ndey ma seen fay ñoo ma yor fii man man maa fi ne seen caat manqué wu ma dara billaahi wallaahi maa leen sant bu baax di leen gërëm li tax muy ànd ak man xam nga cër la tamit cër la man journée ñoon bu doon fu muy bëre damay dem bu gisul ke bu gisul kenn bu geesoo dina ma gis man tamit noonu mu doon mag joo xam dafa joxe cër ma jox ko cër loolu kese la waaw mu jox ma cër torom nag ma jox ka cër loolu la. Mhm. da ngeen a rusante yéen ñaar. du kaa sax xam nga rek sa mag moom bu mag bu la sax dañ koy jox cër. Mm. man noonu laay dundee ñun lébu yi noonu lañ xam. Mm. dama ko jox cër moom tamit mu jox ma cër mu jeex. Mm. Euh, Bass dégg nga li nga xamante ne moom la wax. moom Baye Mandione Junior ndax làmb dafay baax des fois nga dem di seeti champion yi nga xamante ni ñoo ne ci làmb jug ci suuf wala jëm ci kaw tey def na ay preuve ay ci làmb am na loo xamante ni mu ngi koy bay ci waar la ma la waxoon démb rek ñun xale yu ndaw yi lañ fi nekkal ñi nga xamante ni bu ëllëgee ñooy teewi làmb ñu seet si leen dëkkal leen suñu micro waxtaan ak ñoom la Baye lan naa la bëggoon laaj nga bëggoon ko wax te waxoo ko. waaw mais dara xanaa santaat yàlla bu wér rek waaw di wax comme Samba yi bëgg na samay combat te man nekkal ma fi Samba beneen promoteur bu gis koo xamante ni euh, gis na ni kii war na moom bu ma ko joxee dinaa bëre moom waaw di sant tamit ku mel ni Samba yi ndax moom mu ñuy jàppale bu baax a baax a baax ñun bëri caara yi ndax sama ñaari combat yi weesu yëpp moo ko tëgg waaw bi muy tëgg sama combat kàngam rek amul lum si dajul dem na ba nga xamante sax dama ne ko est doo jël sama xaalis nga dolli ko ndax sa waay jël ma. Mm-hmm. mu ne ma noo garaaw dinaa dinaa ko dollil. billaahi maa ngi sant bu baax di ko gërëm di gërëm waa Thiaré ñëpp di gërëm suma gaay ku si mel ni sama doomu nday ay ñoom aada sama booy ñoom aaroon na xam nga di gërëm gaa yëpp ndax mu limee damay juum ñi may jàppale ñoom maa ngi leen di gërëm sama mag na bi maa ngi leen gërëm bu baax a baax a baax di gërëm Baye Mandione nag moom lu ma ko gërëm doyul xam nga moom xam na xam na yàlla nañu yàlla xam nga boole rek ba nga xamante seytaane ba ñu dugg suñu diggante loolu rek laay ñaan. di ñaanal sama papa ak sama yaay yal na leen yàlla xare aljana ak mboolem jullit bu ñu fa fekk. Mm-hmm. wasalaam. ngeen jëf mbokk yi kon noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg ak beneen daanaan ci wasaare làmb jërë jëf. mbokki amateuru lamb yi olof njaay dafa ne fa nga woq foofaa neex delloo fa sab loxo fàllu njaay borom njaay production la mu def keroog ca Iba Mar Diop moom la amateuru lamb yépp di waxtaane ma ne ko fàllu loo narati mu ne ma le 11 janvier 2020 ci stade Iba Mar Diop damay indi combat bu rëy mu nekkati soog des gone yoo xam ne bu ñu bëree mu neex bu ñu feccee mu neex gone yi nga xam ne ñépp leen sopp ndax seenu njàmbaar muy grand combat bi dox ci diggante bébé bismeek Ada Fass bu bennoo nekk yoo xam ne lamb am na ci ñoom yaakaar ma ne cey le 11 janvier premier spécial ba mu Dacia Koña 2 deuxième spécial diggante Baye Mandiaye 2 ak Hercule ma ne mbokk yi loolu rek toj na Iba Mar Diop ne ma dana gën neex ndax combat préliminaire ya Unca bu Malika dana jàkkaarloog naturel bu Grand Yoff Pape Guy gi dana tasek Boy Dioum Aliou Mané 2 Caatu Jokkan Ahmed Lo tasek Ahmed Lacrose Gilo dana tasek Tibles Melkelen 2 dana tasek Karbala Mayga dana tasek Bente entrée ba mu ne dama koy yombal le 11 janvier Iba Mar Diop dana mel ni ndambel banaana